برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان يكون تور أساسا turu délégation bi nga tuddoon. mu ne ci turam ak turu délégation bi nga xam ne moom la tuddoon. di leen jégalu di leen masawu. mu ne di leen jégalu di leen masawu. di leen léegi yéen a ngi toog. mu ne bu yàgg ba léegi yéen a ngi toog. waaye ay itte rek moo ñu guddeel. mu ne waaye ay itte rek moo ñu guddeel. mais ci waxtu yi. ba ci waxtu yi. mu ne ñu ñëw ànd ak xol bi ak mbégte mu rëy mbo mbégte mu rëy ak xol bu sell ci li nga xam ne moom lañ leen fekkee moom lañ leen gisee mu ne dañuy wax ne ñi nekk ci jumaa di julli suñ njëkkee fii ci imaam bi yéex a ñëw. dañ nekk ci julli ba di xaar ba imaam ñëw jàkka ji ba xaar ba imaam ñëw ci julli gi la bokk. mu ne bi nekk ci jàkka ji di xaar ba imaam ci julli gi la bokk. ba ngeen dajaloo ba léegi. mu ne bi ñu dajaloo ba léegi. ñuy xaar ba bi ñu ñëw. nekk di xaar sëriñ bi ba ni mu ne loolu yëpp yàlla daan koy bindal ay yiw mu ne mu ngi dellu di leen nuyu di leen gërëm beneen yoon waaye di leen ñaanal itam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne mu ne teraanga mu ne ku la defal teraanga. mu ne nag koo fay teraanga bu mel ni bi mu la defal. mu ne soo ko tëlee nag. mu ne nga doyloo ñaanal ko yàlla. mu ne ndax ñaan boobu yàlla boo ko delloo. kon nag. nga xam ne moom am ko. mu ne li nga xam ne moom moom lañ am pour fay leen ko. mooy ñaanal leen yàlla rek. mu ne mooy ñaanal leen yàlla rek rek rek rek rek rek. mu ne ñaan googu nga xam ne. am nañ kóllëre. am nañ kóllëre. ci ne yàlla dina ko nangu. mu ne yàlla ñu yàlla jox suñu bëgg-bëgg. ak suñu tàkk ak suñu mbébét barke suñu yëngu yëngu barke suñu dal jox ñu suñu bëgg-bëgg lépp loo xam ne bëgg nañ ko seen bopp lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci suñu bopp bopp bopp bopp bëgg ko tamit ci dëkk bi yàlla na ko yàlla def ci ni ngeen ko bëggee dëkk bi yàlla ko yàlla barkeel. mboolem ñi fi dëkk ñëpp yàlla yàlla barkeel. mboolem ñi fi mbébét ak ñi fi sàkku. lépp yàlla ko yàlla defal ci ni ñu ko bëggee. mu ne ñu ngi koy ñaan. te am nañ jot lu rafet.

leen seen i jox leen seen i bëgg-bëgg. jox leen seen càpp teew. ak son mboolem bëgg. barkeel dëkk bi. barkeel waa dëkk bi. jàpp ci kenn ku nekk seen loxo ci yéen waa dëkk bi. xool kenn ku nekk ci ñoom. xool kenn ku nekk ci ñoom. jàpp ci loxo kenn ku nekk ci yéen. jàpp ci loxo kenn ku nekk ci ñoom. gërëm gërëm bu leen ci li ngeen gërëm li ñuy bëgg ak lu ñu gërëm. jëmee ko ci li ñu bëgg ak lu ñu gërëm. mu ne loolu yàlla yàlla yàlla yàlla. mu ne amuñ ceeb nga xam ne daal. amuñ kàddu boo xam ne. Cheikh Ahmed Tidiane. mu ne di gërëm ci yitte ji kawe ji nga am ne mu ngi ko dëkk bii ak ñi ko ci dëkk bii ak ñi ko dëkkee. ñoo fi teew. ak ci ñi ñi nga mu ne tey tamit li ngeen bëgg. te mu leen koy bëggale. yàlla dina ko def ba mu mat sëkk. mu ne ñu ngi séntu li bàyyi waxoon ne dëkk bii ci Medina la bokk. mu ne diggante fii ak Medina dina mujj tàqaloo. ba nekk benn dëkk. gaaral te la ci waxi baay ji nga xam ne moo weesu. mu ne loolu loolu gaaral la ci waxu baay ji nga xam ne moo weesu. yal na ko yàlla gaawal. yal na ko yàlla gaawal. yal na ko yàlla barkeel. yal na yàlla dëppale seeni xol. seen mboole mi mbébét. jox leen seen mbooleem mbébét. barkeeg seen yëngatu. barkeeg seen dal. ci barke yonent bi.